ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ixwata al iman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم وفقنا للعمل بالعلم على وجه الإخلاص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 ñetti aaya yi nekk sunu kanam sunu boroom lim ñi ci jàngal yooyu ba ci jiitu mooy taqrir mabdaul miaadi wa daarul axirati ala ci aaya yi nekk sunu kanam def ñu ci saxalal principe bu dekki dekki ëllëg yàlla tabaraka wa taala mu am ni yàlla bindee jaam yi sàkk leen indi leen ci àdduna bëgg nu jaamu ko noon la leen di reyee ndugal leen bàmmeel bés ñëw mu dekki leen yowmal qiyaam ñëw mu taxawloo leen ci kanamam kon loolu laa budde ñu gëm ko dafa war a bokk ci pas ngeen jàngee arkaanul iman da ngeen fekk mu nekk da fekk mu nekk juróom biir arkaanul iman yooyu da nga fa fekk al imaanu gëm àllaaxira jullit gëm àllaaxira lan lay def ci dundam day tax dundam jag day tax dundam baax ndax day xam ne ëllëg dana taxaw ci kanamu buur boo xam ne dana ko laaj te bu ko laajee dana tontu te bu tontoo dana ko fay ay jëfam su bonee mu am safaan loolu dañ ko war a jàng mu nekk taqrir mabdaul miaad wa daarul axira ne ëllëg am na kër gu tudd alaxira ni mu amee kër gu tudd àdduna noonu la amee kër gu tudd alaxira dafa am këru àdduna am këru barzaq am këru alaaxira mu nekk ñetti kër ñetti kër yoo xam ne seen dund yi dañoo wuute bakkan mooy jiite ruu tegu ci ñu dem soo góorgóorloo ci sa bakkan nga noot ko ruu bi daal di jag fa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal suñ demee barzaq ruugi mooy jiite bakkan bi tegu ci suñ demee àllaaxira nag ñoom ñaar la yàlla di lënkale bu fekkee ne lu baax ngay am ñoom ñaar ñu ñamandoo bu fekkee safaan ngay am ñoom ñaar ñu ñamandoo kon doomu aadama day dund ñetti dund nit day dund àdduna dund barzaq dund àllaaxira àdduna bakkan moo jiite moo tax nit warul topp bakkanam te xam ngeen bakkan fi muy jëme nit ndax inna nafsa la amaaratun bisuui illa ma rahima rabbi bakkan dafa bari lu muy jël nit di ko dugal ci ay giraawaali lu dul ko yàlla yërëm kon doomu ndey yi mbokk yi li ñuy njëkk a jàng tey mooy gëm gi ñu war a gëm ala ne danañ dellu ci kanamu yàlla tabaraka wa taala ñaareel mooy al ilaan anil xusraani muntaasi yowma al qiyaama mbokki yi danañ jàng tey ci kàttanu boroom bi yàlla di xabaar di joxe information tey jii fii ñu toll ci jamono corona am na heure boo xam ne bu jotee ci télé yépp yi ci Sénégal ak rajo yi dañ leen di synchroniser am na benn ministre buy ñëw di wax lu mu tudd ministre ministre ministre déedéet ministère bi ministère bi lan la. de la santé de la santé. day ñëw di wax événement yi fu ñu toll xabaar yi fu ñu toll ñëpp ne këcc pour xulli seen bët. waaw yàlla tamit nag ndeysaan ci alxuraan bi dafay joxe xabaar waaye kenn dégluwul wala Abdoulaye Diouf Sarr tey ah ministre de la santé su ne tëll ak ak kiyam boobu nu masque masque bi ñëpp taxaw waaw tey ñaata kaa la Koulibaly ah, pourtant loolu la yàlla di def ci alxuraan di joxe information yàlla yónni Seydina Muhammad na joxe information yi Seydina Muhammad ñëw feuille boobu ak ah, feuille boobu feuille boobu ministre bi yore nu mu tudd feuille bi mooy feuille bi nga xam ne ministère lañ ko joxe déclaration bi hmm. moom la yonent bi indi moom tamit yor déclaration bi Ablaye Diouf Sarr taxaw fee mu taxaw fii moom mu def déclaration al ilan lan la yonent bi def déclaré anil xusraani munkaril baas yawma al qiyaama yàlla nee na ñii dañoo perte ñu ne yàlla ñoo ñal la mu ne képp ku weddi yawmal qiyaama ne di nga dékk yow perte nga weddi yawmal qiyaama weddi di xaw rek na gëwuma dékk xam nga lan lan mooy weddi yawmal qiyaama mooy doo ko jëfal doo ko liggéeyal ndax jëf dafa am dee am dekki am su dekki amee foog fay am soo gëmee ne dañ lay fay da nga liggéey wala doo liggéey ñi gëm ne dañ leen di fay nu ñuy def fii ci àdduna bu ñu xëy suba takk nañ seen daal bu leen chef bi ne huit heures da la fekk huit heures fa la leen di fekk su la nee midi ngay wàcc midi nga wàcc su la nee trois heures ngay dugg trois heures su la nee six heures six heures la gëmul àllaaxira perte ah ku gëmul ne dinga nga dekki ëllëg taxaw ci kanamu yàlla yow man qiyaamati perte nga ñun ñu ne kucc ku caaral te loolu li koy wane mooy tey boo xoolee dëkk bi nit ñi ni ñuy dundee nga xam ne ñi gëmuñu àllaaxira gëmuñu dee gëmuñu dekki ndax man kaana yuminu billahi wal yawmil axir da ngay dégg yàlla mu ne wala yenent bi ne fal yaqul xayran man kaana yuminu billahi wal yawmil axir chaque jour aaya yooyu ñaata la ñaata aaya ñooy ñëw ak ak ay di wax gëm yàlla gëm àllaaxira mbokk jullit yi ku gëmul àllaaxira ëllëg képp ku ko weddi ah xasira perte na koo xam ne gëmul àllaaxira bu ndeewee bu nden dekk ci suratu yaasin fin ba benn waaye dafa gis yax bu fënëx mu ne ndax bu ñu deewee ba mel ne yax bii yàlla mën nañoo dekkilaat aaya ba la ca suratu yaasin qul man yuhyi al izaama wa hiya ndax ëllëg ana mooy dekkil yax yi bu ñu fënaxee <laughs> allahu yàlla ne ko tontu wax ko ki ko sàkkoon bi mu nekkagul yax mu def ko mu nekk yàpp am yax mu dund mu rey ko kooku kay mën na koo dekki la man yuhyiyal izaa moo yaram yi mu ne lan ah qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra wa bi kulli xalqin la laaj leen Uzeyru xanaa Uzeyru mi romboon benn dëkk dëkk bi yëpp yàlla alag leen mu ne ñii yàlla naka la ko yàlla defaraate yàlla daal koy rey téeméeri at yàlla dekkil ko kon sunu borom moo moom dee moo moom dekki képp ku weddi ne ëllëg qad xasira allazina kazzabu bi liqaa illah képp ku weddi ne ëllëg di nga daj weddi ne duma ma dajeg yàlla du question déedéet da koy bañ a jëfal ki gëm ne damay dajeg yàlla man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saalih képp koo xam ne leer la ne ay bëccëg a ngi ñëw di nga dajeg yàlla jëfal waaye ku ko weddi mooy du di gis mal uun boo xam ne dafa xëdd ba pare tëddaat Sénégal ngay gis ku xëdd ba pare tëddaat xam nga ban heure lay julli fajar midi war naa dama biddanti ah tey dama biddanti quoi am na mal uun yoo xam ne bëgg nelaw moo tax duñu xëdd bu ma kenn yee wallahi allazi laa ilaha huwa gis naa ku dem ba màkka ñu yee ko fajar mu ne bu ma kenn yee lan ngeen may yee gars yi ne ko mais dañuy dem Kaaba ga julli ji mu ne non su ngeen dem ngeen dem xoolal bu ma kenn yeewaati ah gars yi ko ah mu ne wéy du lañ wax yegg baax na da ngeen a compliqué fii ne noo xoolal yàlla màkk la wax bu la ma sonal gars yi daal di jël seen dàll romb mujj gi gaa yi bu ñu demee ba ñëwaat dañuy toog ne ana tubaab bi yeewu na <laughs> gars yi ne mu ngi ci kaw. bu nit ñi jógee Kaaba ga julli nekk fa jàng alxuraan def ay askar ñi tawaaf ñi dem Safa ak Marwa ñi dem Zamzam ba ñu génnaat Kaaba gi ndeysaan ñi ñëw dajawaat ci hall bi ci bi ci suuf ah ci saal bu mag bi nga dégg ñenn ñi ana seen tubaab bi ah dem leen ngeen seetu ba mu ma nee bu ma laa ca pare subhanallah doomu ndey mbokk jullit yi ñetteel bi ñuy jàng mooy tasliyatu rasul wa xamlihi ala sabr xata yuaddi risalatahu bi ilaamihi bi annahu sawfa yuazibu adaahu tey dana jàng dalal xel gi yàlla tabaraka wa taala di dalal xelu sayduna muhammad sayduna muhammad yàlla day dalal xelam bis bu nekk ndax lan ndax moom buggul kenn dem safara moom dafa mel ni bi ko yàlla yónni dafa ñëw jamono nawet xam nga nawet bu tooyee ba tooy ci àll bi ba ñax mi sax gawar garab yi sëq boo fa taalee safara dafa am ay njanaaw ay gunóor yuy naaw di jaaru si ndax day sedd dañuy ñëw ci safara si waaye bu ñëwee ndax dañuy taxaw rek def nii seeni laaf lu ñuy def dañuy ñëw dugg loolu indiw loo leen di dugg indiw loo leen di dañoo amul xel moo tax bu ñëwee dañuy yaakaar ne rek dañoo war a dugg ñu ne pëm xëm allahu akbar yonent dafay misaal suñu dund mu ne noonu ngeen mel yéen ñëpp da ngeen mel ne taw bu taw ci digg àll bi nawet ba taal bi tàkkee yéen yéenay gunóor yooyu nga xam ne dañoo ñëwoon ci yaaru daal di dugg man maa taxaw ci wetu safara si ku bëgg dugg ma téela na la déet fi safara la yemal fee ba kuntum ala shafa hufratin min an naar fa anqazakum minha moo tax mu ne kullu ummati yadxuluna illa man aba wa qila man yaba ya rasulallah qaala man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba yonente bi nee na xeet bi ñëpp danañ dugg àjjana ba mu des ku bañ ñu ne yaa rasulallah kan mooy bañ a dugg àjjana mu ne man ataani daxala aljanna ku ma topp dugg aljanna waaye ku ma bañ a topp yaa bañ a dugg aljanna xoolal tey adduna bi ni ñu lankee bañ a topp Seydina Muhammad te mu ne ku ma toppul du dugg aljanna bunt yëpp ëllëg yow man xiyaam dañ leen di tëj ba mu des benn bunt mooy buntu rasulullah alquran lu ci nekk ati uuni ati man ata allaha faqad ata man ata rasul faqad ata allah ku topp yàlla topp nga yonent ku topp yonent topp nga yàlla ñoom ñaari kenn mun leen tàqale du nga ne soow ak suukar léegi na nga gis ñoo xam ne xamuñu yonent bi xam na ñoo xam ne messi lañ gën a xam ak yonent bi messi ah ku dàq football ci àdduna bi kala messi ah mhm. ku ci tegu Oh, Chris ku ci tegu Neymar ku ci tegu Sadio Mané Sadio ah? Hmm. Ah, allahu akbar gi ngeen loolu nu mu leere allahu akbar hmm. léegi ñu ñëw ci saxaaba yi waaw ah. kan mu ëpp lu mokkal ci xadis ci saxaaba yi Abu Hurayra ñaareel Abu Hurayra ñaata la mokkaloon wax naa ko. 5714. yaa Aïcha ñaata hadis la mokkaloon. 1900. yaa Aïcha. 2210. 2210 hadis. waaw yaa Aïcha. kooku nuru de. ñii hmm, anha wa ardaaha jaadu na nee na alxuraan da doon wàcc sama biir néeg yonante bi njaganaayoo sama kooñ kenn du ma laaj benn aaya ci alxuraan fu mu wàcc lu dul dinaa la ko wax allahu ku yaroo ci keppaaru yonente bi nekk soxnaam ah deux mille deux cent dix hadis la mokkal mbokk jullit yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla da kaa yónni ba pare di dalal xelam yonent bi bëggul gaa yi dem safara bëggul kenn dem safara yonent bi mooy yonent yërmandi moo tax ne ko illa rahmatan lil alamin yàlla ne ko laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bilmuminin raufur rahim sallallahu alayhi wa sallam bëggul kenn dem safara benn waaye ñëw na ci jàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di génne waaye yàllaam rek ndox saw di tuur ndox saaba yi génne ay yat yonente bi na bàyyi leen jaabur ñu bàyyi waa ji waa taxaw di yëngal affaire bi di sotti di kulli gaay ay bët yonente bi na bàyyi leen ko rek bàyyi leen ko gaay yi mer jàkk ji gën ci jàkk yi lañ saw tey ku demoon ba Touba saw fa déedéet bu lem Touba ku dem Tiwaawan saw bi jinaan bi saw bi du ah. saw nañ jàkka bi gën yooyu te dara xew lu dul jàmm yoon tamit bàyyi waa ji saw ba pare wisu ki jël waa yàlla am dugal ba pare di xool gaañu ant bi ñëw ba ci moom ne ko sama waay mu ne ko waa mu ne ko barab yu mel nii kenn du fi def lii ndeysaan wax ci wax ju sedd ju nooy waa ji daal di xool yonent bi daal ne allahumma arham nii warham muhammada wala tarham maana ahad yàlla mu ne ah mu ne yaa ngi ma yërëm maag muhammad keneen sama fuan ndax ñeneen ñi lu ñu ko bëggoon de mu ñaanal boppam ak yonent bi yonent bi da ko déedéet kaay kaay kaay sawaay yërmande yàlla dafa yaatu bul ko xatal sa yi ñii say mbokk lañ dugal leen ci dugal leen ci borom xam-xam yi doon firi hadis bi ñu ne waa ji yonent bi musal na ko ci ñett musal na ko ci feebar ndax buñ koy buñ ko wulli woon saw yi taxaw te ku sa saw taxaw sa naq fat problème ak hôpital yonent bi ne moo tax bàyyi leen ko ba saw yëpp génn ñaareel bi yonent bi musal na jàkka ji saw yi tasaaroo ndax ku ñuy kuy saw ñu lay wulli saw yi fu muy dem beneen bi mooy yonent bi nee kii yàlla musal na ko ci safara ndax buñ ko reyoon ku ñëw ba jàkk yonent bi saw ñu rey la boo safara ga jëm mais mala sa musal na waa ji ci ñett yooyu yëpp musal na ko ci feebar musal na ko ci ay saw yu tasaaroo ak yëreem yu taq ah musal ko ci safara moo la yonent bi yàlla da kaa yónni woon pour mu yërëm pour mu nekk yërmande ndeysaan yonent bi gis na xale bu feebar nekk yëhu mu dem seeti mu ñëw fekk xale bi di sukuraat mu ne ko waxal laa ilaha illa allah xale bi daf feebar mu daal di xool papam ndeysaan papa ji ne ko ati abal qasim toppal bàyyi qasim xale bi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah daal di faatu yonent bi nee na ajjana li jëm ay dañoo ñëw di dalal xelu yonent bi wa xamlihi ala sabr waaye di ko muñ yonent bi kenn gënu koo muñ ci àdduna amul ku gën a muñ yonent bi lépp la muñ mën muñ na jaamu yàlla muñ jafe-jafe àdduna muñ feebar muñ ay nattu muñ ay tiis muñ ay naqar jaamu yàlla nag moom moo ko gën a muñ ñëpp ndax dafa jaamu yàlla ba yàlla ne ko baal naa la sa bàkk ak yi nga amul yaay ay nee na yonent bi alayhi salaam da jaamu yàlla taxaw guddi bay bëgg a daanu mujj gi day jël ay xeer takk ci biir bi pour mën a taxaw alxuraan sax wax na ko keroog ba ko yàlla ne yaa ayyuhal muzammil qum yaa ayyuhal mudassir qum keroog la yonent bi gëj a nelaw guddi ba mu jeex tàkk yonent bi da daan jël ñaari ràkk julli ko diggante gee ñu noddu salaatu xayru minan nawm ñaari ràkk fajar jot fatiha baqara fatiha ala imran bilaal di noot asalaatu xayru minan nawm loolu ku ko mën fii ci ñu fii boo demee benn jaakaa nga taari woy lu likku li nga dégg bàyyi naan dar nde ndeena juuti mbiyee yoo rabbin dafa guddal ki dafa guddal waay ah! seen imaam bi wax leen nag moom oustaz xale yi nañu wàññi yenn saa nga gis ci jàkka ja benn paa bu ma xëcc lii xal xale yi nañu kii ñun ay mag lañ mënuñu taxaw te bu doon xale bu jigéen la nga taxaw bu dee banque la nga taxaw bu dee estade la nga tax nga gis xale bu góor bu futteeku jël semisam takk ci ndigam di yuux di yuux ba kañ ban heure la bu yuux yi di tàmbali Issa kii Mamadou ban heure la yuux yi di tàmbali ah onze heures ñëw di jënd ticket dugg ban lay jeex timis loolu yëpp taxaw di yuux léegi nag bu ñu la nee taxawal fii ñu tari lam yaku nga ne samay tànk de métti da taxaw 9 ci suba di jënd ticket Balla Gaye mooy bëre Modou Lo mooy bëre Ama Sène mooy bëre Demba mooy bëre Pathé mooy bëre nga dem di jëndi ticket nga taxaw ñaata nga taxaw ñaata waxtu ah nga taxaw kenn xamul 24 heures sur 24 nga taxaw ko 8 ci suba ba 8 ci guddi. suñ la nee taxawal fii ñu ñu tari am mayata nga naan mënu moo ko samay tànk day metti moo tax ñu seetaat suñu bopp bi alayhi salaatu moom dafa taxaw ba tànk yi metti ma mënatul taxaw yaay ay nee na yeneen di bi ay xeer la daan takk ci biir bi pour mun a taxaw yàlla sax moo ko wax kaanu qalilan min al leyli maa yahjaun allazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama mbokk jullit yi yonent bi dafa muñ pour joxe risaala bi message bi di lislaam yonent bi bu muñuloon du tax fekk nañ ko ci keppaaru kaaba gi mu sujjoon di julli ñu jël mbaqu nag mbàqu gëléem bu dee gëléem gu ñu rey ba pare mbàq gi doon mu ne ñu jël ko teg ko ci kawam ba yonent bi mënul abu Aboubacar moo ñëw puus affaire bi beneen bi dañ koo fekk mu sëgg ñu ñu daal di jaawale ñaari kaalay rek xoj ko ndeysaan keroog bañ koy yóbbu Fatima danoon jooy sama baay sonn wooy sama papa ndeysaan ne ko Aysa lii la ma yàlla yónnee moo tax bi muy faatu Aysa ne waa karba abata yonent bi sigi xool ko ne ko laa karba bi abiki baadal yow wooy papa sonn nga mu ne ko sonn jeex na coono bi jeex na tey jeex na takk tey jii moom coono jeex na bi ko yàlla yónnee mu ne laa raaxa noflaay amul bi muy faatu mu lu mu wax coono jeex na bi ko yàlla yónnee mu ne coono noflaay amul bi muy faatu lu mu wax Aïcha la karba bi abiki baad al yowm ginnaaw tey dootuma sonn mooy àjjana firdaws direct allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko protéger mu muñ pour jottali message bi pour yëgal nit ñi ne képp ku noonu lislaam yàlla dina la mbugal ëllëg yowmal qiyaam loolu danañ ko jàng tey danañ jàng bayaan kayfiyatul xisaabi yowmal qiyaama yàlla naka lay àttee jaam ñi ëllëg yowmal qiyaama yàlla naka lay àttee jaam ñi allahu akbar diggante xeef ak xippi yàlla àtte ñëpp nit ñi ñaata lañ ah mas ngeen seetaan stade gis nga bu marché bi tasee ku nekk da ngay génn rek jubal seen kër direct wala doo gis mu ku jaat dem feneen ñëpp ñëpp direct kenn du réer parce que ku nekk xam nga fi nga jógoon foofu ngay dellu yowmal xiyaam yàlla nu muy àttee nit ñi xef ak xib wamtaazu yowma ayyuhal mujrimuun ñëpp a ngi dajaloo ci benn terrain yàlla mu ne ñu yéen bandi yi génn leen ci biir ñu baax ñi ñu bandi ñi dañuy bandi yi dañuy rëkki la taxaw ne benn miir dóor ci digg bi bëm miir bi jaar diggante ñu baax ñi ñu bon wa duriba baynahum bi suur baabun baatinu miir bi ñaari sens la côté ndeyjoor bi raxma moo fi nekk côté càmmoñ bi azab moo fa nekk ñii ngi fii di yërmande ñi ne ñu leen di mbugal fële allahu akbar ñooñu ñeneen ñi naka yàlla di xamee dañuy yàlla danaan sujjóot nañu sujjóot tey yow ma yu daaw na ila ila sujjóot yàlla mu ne sujjóot leen ñi doon julli daal di sujjóot ñi daawoon bañ a julli dañ naan nii seen articulation ndigg yi yàlla daal di koy téye mu wow koŋ ñu mel ni ay filaawo wala ay pot làmp yu taxaw kenn ñu xam ne ñii ñoo daawul julli ñu ne ñii julli génn leen dem leen ne dem leen ne njexee bange payee oya bange daal di déclenché wu ñu ne ñeneen ñi acca dañ leen doon wax kaay leen julli ngeen bañ fala yastatiuuna du ñu mën su keroo na nga gis xaasi atan absaaruhum ñu xulli bët ya nag ba lu ñuul li réer dañuy xulli bët yi ba lu ñuul li jax tag tarxaquhum zilla torox tànge daal leen di muur foofu li ci tegu qad kaanu yu daaw na ila sujudi wa hum saalimun dañ leen doon wax kaan non garaawul bu ma yeewoo rek dinaa julli xaaral maa ko leb moo tax nañ leen bàyyi xel ci lu ñuy def yàlla wax naka lay àttee jaam ñi ëllëg yowmal qiyaam bi an yàtte rasul wa ummatihi yonent bu nekk day ñëw yonent yàlla aadama mooy njëkk a ñëw tëll indi ay nitam yàlla àtte siis ñëw yàlla àtte nuux ñëw ibrahima ñëw Moussa ñëw isa ñëw yonent yàlla muhammad mooy tëj affaire bi par yonent lañu yaat waaw ummatihi summa yajri lxisaab baynahum fa yunji llahu lmuminin yàlla musal way gëm yàlla yi wa yuazib alkafirin mu mbugal yéeféer yi am leen boole ci way gëm yàlla tënkee mbokk julit ñeenti aaya yi lii lañ ci jëlee ñoo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu borom màgg gi mu dëgëral sunu làmmiñ ba ñu bañ tarxiis ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بارك الله فيك سن برام جل جلاله وعز كماله yawma yaxsuruhum waay waay fàttaliku leen yàlla di dekkil di leen dajale yàlla di leen dekkil fan la leen di génne min quburihim ci seeni bàmmeel wa najmaahum yàlla nee na ma dajale leen li saaxati faslil qada ci pénc mi nga xam ne fa lañuy ñuy mbir yi ñëpp la yàlla di dajale ci benn terrain nit ñay njëkk la yàlla di njëkk a dajale ba nit ñëpp dajale depuis aadama ba ki mujjee dee yàlla wax ko ci alquran ne yaa maasara al jinni wal ins yàlla wax ko ci alquran ne haza yawmul fasli jamaanaakum wal awalin tey mooy bis bi ñuy tàqale dëgg ak fen yéen ñëpp dajale naa leen yéen a ngi nii jamaanaakum a awwalin boole naa leen ak ñu njëkk ña depuis aadama ba ki mujjee dee tey ci xeetu yonent yàlla muhammad te yéen yëpp yéen a ngi nii doomu aadama yi bu ñu dajee ba pare yàlla day jël jinne yi jinne yi wër leen malaaka yi wër wëraat wëraat mu nekk ñett yàlla nee ku mën a daw dawal tey aywa ku mën a daw dawal yaa maasaral jinni wal in istataatum an tanfuzu min as-samawati waaye laa ku mën a rëcc rëccal tey kenn du mën a rëcc lu dul ko indi lay wu leer kenn mënul daw tey su keroogee noonu la yàlla di àttee jaam ñi mbokk jullit suñu borom ne wa yawma fàttalikul bis boo xam ne yaxshuruhum yàlla dina leen dajale dekkal leen dajale leen génne leen ci bàmmeel yi ka an lam yalbathu illa saatan min annahaar laa laa ilaha illa mbokk yi bu ñu dekkee day mel ne benn bëccëg benn bëccëg saa benn heure lañ def ci aduna saa min annahaar ki fi am téeméeri at suñ ko dekkilee yowmal xiyaam mu daal di dégg malaaka yi ne ko yow góor gi kaay waaw yow ñaataan nga dut nga def àdduna danaan man benn heure laa fa am dee fekk ci àdduna def na fi def na fi téeméeri at moo ñuy wan ne àdduna amul valeur yonent bi nee na àdduna bu amoon valeur yéeféer du fi naan guuxu ndox moo tax Umar bi mu nee yonent doom bàyyi mu utal la mu utal la mu ne ko maali wali dunia yaa Umar maali wali dunia maana illa ka rakibin qaama fa tarakaha Omar lan moo ma booleeg àdduna maa ngi mel ne ku doon tukki bi mu bi ma demee ma ma gis garab gu féex ma dox ba sonn ma gis garab gu feex gu am ay kar ma toog noppalu su ma jógee après nu may def damay buddi garab gi yóbbaale nooy def yonent bi nee man noon laa mel ak àdduna maa lii wali dunia mbokk yi ki ëpp dund ci àdduna suñ ko su dee ba ñu dekkil ko ci kanamu yàlla suñ ko nee loo ñaata at nga fa def ñenn ñi dañ naan lam su illa saa ñenn ñi dañ naan benn heure ñenn ñi ne illa yawman aw baada yawm ñenn ñi ne ñun benn bis lañ fa def ñenn ñi ñu ne genn wàllu bis lañ fa def dañoo ñëw suba rek ni di ñu dee allahu akbar xam nga lu tax inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun ñun suñu junni at mooy benn fan ci yàlla junni atu nit ñi mooy benn fan ci yàlla est-ce que nit dina am fii junni at léegi bu fekkee junni at suñu junni at mooy benn fan ci yàlla kon fii minute yi ci yàlla lan la moo tax yonente bi nee na ëllëg yowmal xiyaam bu ngeen di dugg àjjana ci at yooyu ngeen di dugg àjjana mu ne miskiin yi danañ dugg danañ dugg aljanna juróomi téeméeri at après borom alal yi doog a ñëw juróomi téeméeri at ci yàlla xam ngeen ñaata ñaata fan la ah wàll wàllu bëccëg genn wàllu bëccëg boo ko xaajee genn wàll gi ci la waa àjjana di dugg ba pare ñale doog a ñëw ndeysaan mbokk yi àdduna amul sens amul solo balaa ngeen di xam ne àdduna amul solo xool leen mbedd mi tey ñuy tafsiire mbedd mi tàmbali leen bopp taliba bii ba bopp koñ ba bépp kilifa gu fi ñëwoon nga xam ne 1968 nga ñëwoon ci kox bi tey jii fii ma toog ci koñ bii 68 borom kër ànd ak sa njaboot ñëw fii dee nga nekkoo fanaana ku ku dund 68 ku tox woon 68 yor sa kër fanaanatoo ci mbedd mi paa yëpp dem nañ fii mbedd mi bopp koñ bi laa ba tali ba ñëpp faatu nañ tey ñun ñooy paa yi ñun it léegi leen yal na yàlla yërëm sama papa Mamadou Thiam dañ doon ànd jàkk ñëw bu ñëwee mu ne ma Saïd ma ne ko la bayk toogal ma toog mu ne maanaam borom kër gi ma ne ko kan papa ngaari wan mu ne waaw ma ne ko papa kii mu ne kii nag ma ne ko papa enseignant xanaa dangaa fàtte mu ma dama lay laaj rek kële ma enseignant génn naa duna kii nag ma ne ko papa Bakary génn naa duna mu ma kii nag ma ne ko Harouna Thiam génn naa duna mu ne doom maa ci topp topp na man tamit maa ciy topp waaw noonu la adduna amul solo soo fi dundoon junni at ñu wisaada yeneen junni at après nañ tàmbali fii yow ñaataat nga bëgg dund ci àdduna <laughs> ñaar yow ñetti yow ñeenti téeméer yow suñ ñëwee ba ci kii mën a junni at après su junni at yi jeexee te junni at yi foog mu ñëw après da ngay dee yàgg-yàgg dee yonent yàlla noox ñaata at la dund alfa sanatin illa xamsina aman junni at yu manqué juróom fukk bi mu faatoo malaaka yu wër ko nekk ko nu noo gisee àdduna mu ne kër gu am ñaari bunt ma dugg ci bunt kër gi génn ci bunt kër gee yàgg na junni at yu manqué juróom fukk mu faatu malaaka yu wër ko ne ko nu noo gisee àdduna mu ne benn kër la gu am ñaari bunt quinze sur dix bu am ñaari bunt kër mu ne damaa dugg ci bunt bi rek génn ci dee ngi noonu mbokk yi yàgg-yàgg dañuy dem dañuy dee waaye dañu war a préparer dee dee du gàcc dee victoire la ci ku sànkul dundam xam nga kan moo perte mooy kiit dund te préparé wul ne day dee benn waaye dafay misaal àdduna ci doomu aadama nu mu war a profité balaa muy perte mu ne ñaari xarit dañu juddandoo ci koñ jàngandoo école màggandoo kenn ki yàlla def mu am alal tukki ñëwaat yor ay lu dul jeex ay magasin ki conteneur alal bu dul jeex keneen ki nekk ñàkk ñoom ñaar ñu daal di gisewaat mu ne ko waaye yow nii nga mel nag mu ne ko man awma yàlla nii la mu ne ko seet ma mu ñëw mu daal di koy ubbi magasin yi bii orlam bii jama bii xaalis bii bii bii magasin yi yëpp mu ubbi ko mu jox waa ji benn saak mu ne ko léegi Eh, dama lay may une de temps une heure saag yi ñaata saag nga yor mu ne ko indaale naa téeméeri saag mu ne ko boo magasin yaa ngoog saag bu fees yaa ko moom saag bu fees ba nga génne ko teg takk yaa ko moom waa ji daal di kontaan xam ne tekki naa nga yor téeméeri saag ñu dugal la ci benn kër go benn man ay magasin yoo xam ne li fa gën a tuuti mooy xaalis ci luy jëriñ mu daal di dugg commencé di xool fan laa war a tàmbalee ci jamaa bi wala ci or bi wala ci bronze bi wala ci zircon bi walla ci foofu muy xool fan laa war a tàmbale mu gis benn lal bu nooy bu féex bu sedd bu mu ne nii rek ah, comme damaa sonn xaaral ma noppalu fii tuuti mu daal tëdd ndeke nelaw mu ngay xandoor nelaw nelaw nelaw nelaw une heure lañ ko may mu jékki-jékki rek ci ay nelaw rek mu tiit des mu daw gardien bi fëgg ne ko heure bi nekk kii sama saag yi ne ko non ñëwal loolu mooy dund doomu aadama yàlla ko bàyyi day daw daw daw yooyu jékki yi rek malaakal moo di ne la ñëw ne la jeex na de nga naan eh man dama Italie laa di man maa ngi woon Amérique maa ngi woon France maa Canada man ki ki démb lañ ma nommé ministre. dee jot na ngay dee ndeysaan bàyyi projet waa ji noonu la deewee solul benn saabu loolu mooy nit nit ki noonu la dee deful benn jaamu yàlla bu ko yàlla santoon mu ngi mu ngi daw rek man damaa war a damaa war a jàng jàng na damaa war a liggéey am na liggéey damaa war a ubbi compte ubbi na compte dama war a dajale mu ngi dajale dama war a jënd kër jënd na dama ko war a tabax tabax na dama cee war a dugal bagage yëpp def na ko dama war a takk jabar dugal na léegi daw na daw na daw na daw na daw na daw na daw na daw na ba màgget na dee ñëw mu ne nag dama war a jàng sama diine ñu ne ko daal yow bi ngay dund programme woon diine nga ñëw tey nga ne diine ah, ngay gis boo xam ne daa daw daw daw ba sonn jël faat jël kaye kaye kaye 32 pages traduire ci fatiha eh, bismillahi rahmani rahimi alhamdulillahi rabil xalamina rahmani rahimi melike midini yàq du yàq nastain xam nga ne ku yàq na abud yàq nastain doo am ci julli gi dara yàq na abud loolu la ñuy jàng yàq na abud yàq nastain xam nga ne julli gi doo ci am dara yaa ko tey noonu la ñuy nga dégg yeneen paa yi retraité yi achadu alaa achadu achadu luy ñeneen ñi jaakubar ñu war allah akbar ñu naan ba màggat nañ ci stade yi màggat nañ ci làmb yi màggat nañ ci soirée yi màggat nañ ci yow léegi ne dangay ngay xëccoo di jàkka yi ah nga sa génération ba jeexal mënatoo dara jigéen ñi bëggatuñ la xale yi góor yi bëggatuñ la màggat nga àdduna bi footballeur yi bëggatuñ la kenn bëggatu la léegi nga wut kurus nag ndeysaan ndeysaan waa ji daa ay nag topp nag yi rek topp nag yi topp xar yi ba yëpp dee benn feebar ñëw yëpp dee ndeysaan mu daal di jël kurus gi jëm jàkka ja jabar ji ne ko hee mu ne yi moo laa ko réewi kay rewaal <laughs> <laughs> <laughs> mu alaa ko réewi kay rewaal comme amatuma lu ma topp ma topp yàlla ah. mbokk yi sunu borom nee na ñooñu ya lam yalbasu saxuñu saatan min nahaar lu dul benn heure ci bëccëg mun a yataarafuna baynahum gis nga yowmal xiyaam bu ñu dekkee dañuy xamante comme nii ñu xamantee nii Muhammad a ngi ne eh, eh, eh, dañuy xamante yataarafuna dañuy xàmmante baynahum seen diggante ñëppay xamante ñi xamante woon démb dañ doon toog di daje ku nekk dangay xam sa morom yàlla mu ne xat ca dëgg-dëgg xasira perte na ñi nga xam ne kazzabu dañoo weddi bi liqa illaahi dajeeg yàlla ñi perte mooy ñi ne duñu dajeeg yàlla te xam nga loolu lan la lay jural mooy wama muhtadin soo weddee ne doo dajeeg yàlla doo jub ndax ki man damay dajeeg yàlla ah day préparé ki ne day day ngoon rek bu ñu téléphoné woon fii léegi bu ngeen tafsiree ndax ndax dinañ préparé wala duñ préparé kon balaa ñu ñëw ci tafsir bi ñun ñëpp dañuy préparé ndax dañ naan eh duñu mën a dellu kër ga foofu la ñuy jaar rek dem gis nga léegi ñun ñu ne ñu ñun dangeen di dajeeg yàlla ñu toog di xoole moo yàlla mu ne wa maa kaanu muhtadiina du ñu jub mukk nekkuñu woon ñu jub ñu weddi ne danañ dajeek yàlla yàlla ne ne nekkuñu ñu jub ñu perte mu ne sunu borom ne wa imma nuriyannaka baada allazi naiduhum yow yonent alayhi salaatu wasalaam maa ngi lay xamal ne dinaa la won lenn ci li nga xam ne maa ko dencal ñii dig leen ko dinaa la ko won imma nuriyannaka benn ma won la baadallezi naiduhum lenn ci li nga xam ne dencal naa leen ko dig naa leen ko ay inna araynaaka lezi naiduhum min al azabi fi fii ci àdduna balaa ngay dee ñii band yi saay-saay si caaxaankat yi danaa la won yow muhammad balaa ngay faatu mbugal gi ma leen dencal ëllëg yowmal qiyaama danaa la ko won nii ba nga gis nga xam ne ñii lii moo leen di xaar ëllëg yowmal qiyaamati amul leneen aw natawaffayannaka walla yow yonent bi alayhi salaatu ma faat la ma génne la àdduna nga faatu nu miituka xabla zalika benn ma war la ko ci sa dund nga gis ko walla nga faatu doo ko gis kon àllaaxira nga koy gis yii mais fii doo ko fi gis waaye al almuhim ñii dencal naa leen mbugal bu saf sàpp mu leen di xaar te yàlla ku mu ne dencal naa la mbugal bu yeboo nga xam ne mbugalu yàlla dana dal sa kaw ndax mënoo muus ak waane ba doo dee ndax yàlla la bind moo moom sa bopp ni la yàlla bind noonu la lay reyee nu la bu la reyee dina la dekkil su la dekkilee dina la fay kon nit ñi dañoo war a xam lan moo tax ñu war a dund li yàlla wax lan moo war a tax ñu war a nekk ci li yàlla bëgg comme yow moomoo sa bopp ñun ñi kenn ci ñun bu muy judd moo tàggu ne maa ngi juddu ji dangaa xam sax foo bokk dangaa xëy rek ñu ne la yow de sàmba nga jóob nga sant faal nga sant caam nga sant saar nga sant nga ne ah kii mooy sa papa <laughs> ah <laughs> papa nga noonu nga noonu nga ganee àdduna tàggu woo leen ñoom ci seen bopp noonu ngay faatoo doo leen tàggu dañuy xëy rek ma po woo paa bi ne ko sa doom dee na mu daw fan yëpp woo doomam du ko jot ñetti weer mu ngi woo doom ji mun ko jot barki de ñu woo ko ne ko kooku daa dee ci biir néegam ba yàqu allahu akbar yàlla yërëm yal nañu yàlla yërëm xoolal loolu ni mu méttee yaay buy woo doomam di ko woo di ko jot di ko woo di ko jot di ko woo di ko jot ba bis rek téléphone sonné nga jël ñu ne la moom kay gaañu na fan ci biir néegam dañoo dajji néeg bi fekk ko mu dee laa ilaha illa allah yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko sunu borom subhanahu wa taala mu ne yonent bi fa ilayna marji'uhum ci man la ñuy dellu summa allahu shahidun ala ma yafaluun man yàlla maay ki doon seede seeni jëf ci àdduna gis nga suñuy jëf du nit ñi ñoo koy seede waaye yàlla nga koy gis ku nekk yàlla xam na la balil insaanu ala nafsi basira li ngay xam-xam sa bopp yàlla moo la gën a xam ndax yaa ci lu baax wala yaa ci lu bon kon bu yeboo ñu góorgóorlu nekk ci lu baax ñu baña a nax suñu bopp fa ilayna marji'uhum ci man la ñuy dellu lu ñu wiiri wiiri wiiri wiiri ci man la ñuy dellu dañuy sonn rek loo fi nekk di def ci yàlla ngay dellu dundal lu la neex amal lu la neex dëkkal fu la neex solal lu la neex waaye da dee boo dee da ngay dellu ci yàlla démb bébé awa dama ko nekk dafa tudd benn meer ma ne ko kooku dafa am dëj ana maam diw ma ne ko maam diw dafa am dëj sëtam dafa gaañu rek bébé awa ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun gis nga ñun ci yàlla la ñuy dellu ci yàlla lañ bàyyeekoo ci yàlla la ñuy delluwaat wallahi fi ma toogoon dama siggi xool ko mu ne ko loo wax mu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahu akbar ci yàlla la bàyyeekoo ci yàlla la ñuy delluwaat fa ilayna marjiuhum ñoom ñëpp ci man la ñuy delluwaat suma allahu topp yàlla shahidun mooy aji seede ji alaamaa yafaluna li jaam ñi nekke woon di ko def waaw sunu borom de moo ko seede waaw yowmal qiyaamati li anna ilmullahi taala bi amalihim yàlla xam-xamam xam na ku nekk sa jëf jalla jalaaluhu azza yàlla ku nekk xam na la waaw doomu aadama day dekki ëllëg taxaw ci kanamu yàlla yonent baa ngi misaal di wax xadis bu doy waar nee na benn waaye dafa faatu yàlla ne malaaka yi yóbbu leen waa ji safara malaaka yi daal di tiit naa ne yàlla kii naka lay demee safara yàlla mu ne lu def malaaka yi ne yàlla ñun dem nañ ci këyitu waa ji gisuñu ko bakkaar te yow yaa ñu waxoon ne bàkkaar mooy yóbbu nit safara kii këyitam amul bàkkaar nu muy demee safara yàlla mu ne lu tax ngeen bindal ko tiyaaba ñu ne kii dafa amoon yaay moo koy sang moo koy jox mu lekk moo koy jox mu naan moo koy solo yére moo koy boot dundam yëpp ci yaayam boobu la ko jeexal di ko di ko di ko dimbali saa yi defee ba pare ñun tamit ñu bindal ko tiyaaba yàlla ne leen yéen li ngeen gis ci kaw moom ngeen bind xam ngeen bu joxoon yaay yi lekk ba def loolu lépp ba dem sang ko ba tëral ko ba pare xam nga lu muy wax bu dégg malaaka mu ne xol bi mooy wax yàlla na meer bi dee ba ma noppal yow yàlla yàlla na ko rey ba ma noppal yàlla ba ma noppal allahu akbar malaaka parce que yàlla moo xam ci biir moo tax fii foog ñu defar ko foog ñu defar ci biir ci biir bu baaxul wax naa ko démb ñu ngi raxasloo nit ñi loxo yi law jee moo doon ah? ah raxas leen loxo yi xol yi lañ war a njëkk raxas su xol yi setee rek loxo yi set waaye bu xol yi setee te xol yi tilim amul njëriñ yàlla na ñu raxas xol yi balaa loxo yi su fi setee rek fi set waaye bu fi tilimee fii du set donte ne boo ci defee ordre de def ci saabu def ci zetol sa de boo buñ la joxee kees gi léegi nga daw ak moom <laughs> buñ la joxee keesu dëkk bi ñu jox la keesu dëkk bi ñu fal la ministre wala ñu def la député léegi nga daw ak kees gi kon kay fii setu pourtant waa ji <laughs> set na wi waaye est set na parce que fii moo setu moo tax mu daw ak xaalis bi ñaata nit ci Sénégal tey ñoo daw ak xaalis bi ñoo denc xaalis miskin yi ceeb bi rek ceeb bi dañ lay jox fukki saaku kumba war saako ji jéeri di les-les defal juróomi saako ci ron lal yi nga indi ñett yi ñu séddale ko waa koñ bi est kon fii set na kon fii moo setut moo tax fii mënut a set gars yi xol yi lañ war a raxas doomu ndey yi yeneen yàlla nee na wali kulli ummatin rasul amul xeet wu nekk lu dul yónnee naa leen yonent walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasul an ibudu llah wajtanibu taaxuut yàlla nee na xeet wu nekk yonnee naa leen yonent wali kulli ummatin rasul xeet wu nekk yàlla yónnee na leen ndaw lu tax pour ñu jaamu yàlla pour ñu xam fu ñuy teg seen tànk bàyyi caaxaan tey koo wax xoolal xoolal woote yi nu ñaata kër fi nekk ñaata këru diine ah ñaata kër kër Samba kër Modou kër Demba kër Paata kër Yero kër kër kër kër dañoo dem balaa ilaha illallah bi sax dañ koo wut dañ koo wutal ay façon kër gu nekk ak sa laa illallah kër gu nekk Sénégal ak sa laa ilaha ñoo ñal la laa ku nekk ak sa laa ilaha illallah koo takk koo dégg guddi mu takk rajo rek da xam ne ñii ñii la ndax ni mu koy waxee te laa ilaha illallah benn kese la benn kese la adduna bi yëpp ko bokk warul am changement mais kenn même mbax na yi sax mbax na yi da gis kër goo xam ne ah weeroo boorute ko bodee ji di <laughs> ñii ñooy sol yu xonq yi saa yoo gisee waa sol yére yi weex sol lu xonq nga ne ñii soo gisee ku sol yeneen yi am benn lang-lang fi nga ne ñii soo gisee ku muuroo kaala nga ne ñii ku nekk ak sa kaala ku nekk ak sa mbaxane ku nekk ak sa colin fuñ jëm tàqale jullit yi tàqale nit ñi te nit ñi dañoo war a nekk benn ah, yàlla nee na wa anna haadihi ummat benn yàlla nee na benn ngeen lan lañ bokk ñoo bokk benn yàlla wala ñoo bokk benn alxuraan wala ñoo bokk benn yonent wala ñoo bokk benn xibla bu ñuy julli suñuy jublu waaw kon lan moo ñu taxale lan lii yëpp ñoo ko bokk kon lu tax ñu taxali ko yàlla taxul du yàlla tax de xanaa koor gi sax woorandoo wuñ lu tax du yàlla du yàlla su dee yàlla la yàlla moo ko moom yow sa yoon nekku yàlla nee na fa man shahida min kum ñun wooru eh, dégg te waxagul te sàmba moom bi mu bi mu jullee timis la dugg tam tëddi sàmba <laughs> tal xoolee léegi moom nee nañ waxul fu muy waxee wax leen ko weer fii ah moom bu xasee dugg kenn du ko ko wax lu tax te yonent bi ñu ko wax waaw ah yonent bi woor jàmm sàmmkat moo ko warloo sàmm moo warloo yonent bi sallallahu alayhi wa wa in wa li kulli ummatin rasul xeet wu nekk yónnee naa leen yonent fa iza jaa rasuluhum bu seen yonent dikkee qudiya baynahum bil qist allahu akbar yowmal qiyaam dañuy woo xeet bu nekk ana xeetu diw ana nitu aadama yi ñu ne ñoo ngi nii ñu ne ñëw leen ana nitu ibrahima yi ñu ñëw ñu ne ibrahima ñëwal ana nitu nuux ñu ñëw taxaw ñu ne nuux ñëwal ana nitu moussa ñu ñëw taxaw ñu ne moussa ñëwal ba fin bi ñu ne ana ummatu muhammad ñu ñëw taxaw ñu ne sayduna muhammad ñëwal mu ñëw di ñu seede ñun ñooy seede yeneen xeet yi suñu paree yonent bi seede ñun ñooy seede yeneen xeet yi yeneen xeet yi bu ñu buggee bi yàlla danaan yonent yooyu dañ naan laaj leen ummatu muhammad ñun ñu ñëw yàlla ñun ñu témoin yeneen xeet yi ñun yàlla na nu ngeen ko xamee ñu ne waxoon nga ko ci alxuraan ne diw nga yónni woon dañoo fétteerli woon dëgër bopp ba nga yónnee ci ñoom corona mu wulli leen hmm. kon jàngoon nañ ko waaw yàlla mu ne fa iza jaa rusuluhum bu ñu indee yonent nag xudiya baynahum bil qist ñu àtte mbir mi nag ci dëgg wahum laa yuzlamun kenn du tooñ kenn allahu akbar yeneen di day ñëw ne yàlla man day yaa ma yónni woon yow xam nga ci dara waaw waxoon naa ñoo ngi nii naa ko de waxuma ko woon ñu bëgg a weddi yàlla yonent ne laajal xeetu Muhammad yàlla mu ne xeetu Muhammad ñu ne wax dëgg la jàngoon nañ ko yónni woon nga ci ñi ñooy ñan ñu ne ñii ñooy waa aat ah ñu ne ah waaw ak ñii hut lañ yónni woon ci ñoom ñii ñooy ñan ñu ne ñii ñooy waa samuud kan laa fa yónni woon ñu ne saalih ñene nag ñu ne ñi la ñooy nitu waa Babel ñii ñooy nitu Ibrahima yi waaw ñooy ñam Namrud kee mooy Firawna mu gën a le waaw Moussa nga yónni woon ci moom muy ngand ngandul jàng nañ ko ba nga labal ko ci ndox mi <laughs> yàlla mu ne jeex na fa qudiya baynahum bil qist wa hum kenn du tooñ foofu waaye wa na ña ngay laaj yéeféer yi ñi dul jaamu yàlla dañuy laaj naan mata hazal waadu waaye yowmal xiyaam kañ la yéen li ngeen di wax naan alwaadu yowmal xiyaam yowmal xiyaam bil azab kañ la mbugal mi di ñëw kañ la in kuntum saadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg yowmal xiyaam kañ la chaque jour ngeen taxaw ci rajo yi taxaw ci jumaa yi di ñu sonal taxaw ci télé yi yowmal xiyaam yowmal xiyaam yowmal xiyaam kañ la incha allah suba yàlla dina tontu wax yowmal xiyaam kañ la lii mooy sunu dar tey ñoo ngi jéggalu kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu